ku der la nekk gaynde nekk waaju baax ñu fekk ko tey fii kër Papa Boy Djiné loolu rek fu ñuy commencé mooy si li nga xamante ni moo jot am démb diggante papa ak ki nga xamante ni moom mooy jokkeel combat bi am fu mu mujjee mu yàlla def mu ñàkk combat bi mais tey ñu bëri dañuy laaj papa lan mooy problème am booba léegi mi ngi bëree te mënul fexe ba daan yéen ñi ko seex problème bu encadrement la wala problème lan la parce que euh, moment bi ñu toll nii papa démb combat bi ne moo woon combat bi mais li mu ñàkkee combat bi est-ce que mu ngi si combat bi nga xam moo dem waaw sa biir wax sa biir wax léegi ni bi ngay commencé di wax da nga ni ma ngi gis Maguette sek ko xamante ni der la jambar la du loolu nga wax waaw man nak duma top ku dul der ku nekkul jambar waaw tay ji papa bu nekkul won jambar nekkul won der duma top man duma top topp ci ginnaaw yambar waaw waaw mbeur la champion la mbeur la bo xamanteni xam nga borom mo do mo weddi moo dogalagul mais mbër la daal mbër la comme mbër yi nga xamante ni ñi ngi bëre di daan mbër la mais nag suñ borom moom moo moo dogalagul ndamam waaw. waaw mais dem lu gis ko aussi combat mook Jokal jàppante nag Jokal bu am position bu baax nengeeñ na ko pour def action mais Jokal est-ce que yoon la woon jàppante am est-ce que ñëwoon pour indi xatiir alxatiir tegal ko lu teg pour mën ko daan parce que Paa li mu jàppante yëpp action amul dafa jàpp nengeeñ mais bëriwul moom lan mooy problème bi exact. waaw mais alxatir alxa al al alxatir bi mu ko mujjee indi ci la jafe ci la làmb ji jeex ci la làmb ji doog am papa démb bëri na wan na ni gars yi li ngeen ma wax respecté naa ko parce que dañ ko waxoon téel sa bopp waaw mu ñëw téye boppam bëri na xool na loolu amul doxul te avertissement am na am na trois avertissement kee am ñaari avertissement si la doxee si kawam bëreeg moom waaw loolu moom ku indil jafe-jafe yi yëpp waaw noonu la demee. mais gis nañ coach ron aussi ben instant amna investissement avant investissement avant même troisième fofu gisoon coach bi aussi waroon na mën parce que coach coach mo won gagner làmb ji. Hmm. Ah, non non non coach coach war na gagné làmb ji mais xëy suñ borom non la ko dogalee won rek parce que mom suñ naree bon mom wa affaire du du jàkk quoi wa mais suñ borom mom non la ko dogalee won rek di ñaan xam ah, borom sax borom bis bi mom xamna amna xolu muñ ta xamna na ni carrément aduna xam. yaa de hoo yaa ba waaw adduna moom tey day neex suba mu naqari waaw ah di ko ñaanal daal di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal wér ak wér la rek waaw comme que jotaan na bakkanam rek alhamdulilahi rabil alamin wala dañuy daal si làmb ji ba léegi parce que Maguette Seck aussi xam ne xam ngeen ndaanaan nga bërekat nga mais boo waxee papa Boy Djiné démb ban erreur la def ba tax mu ñàkk combat bi ak la la woon def pour daan combat bi. xama xama ndaanaan la. papa combat bi daa mun mun ma ko see barke alquran bima ma demee jàppale ko entraînement munu ma ko seedaan billaahi wallaahi wa taala mais luy problème bi non li problème bi mooy sa problème boobu moom ñun mooy suñ problème parce que papa xam nga ñun dañ nekk si mbedd mi ñuy dégg mais nañ papa la mooy problème papa dañ ko yàq mystiquement papa la moo tax dan. daan waaw kii yàqe moom dina ak yàlla ala kulal di nga dajek yàlla képp koo xamante ni yaa ngi def loo xamante ni ba suñ borom moom dina la woon bëcc dina am bis boo xamante ni dina la woon na lu bon moom lu bon rek lay lay lay am voilà mën nga di def lu bon di réussite mais bis dina jot lu bon loolu dina wëlbatiku këpp sa kaw waaw te ñu ngi ñaan yàlla moom xama nga képp koo xamante ni def nga ko loo xamante ni lu lu lu lu lu lu baaxul la yàlla na ko suñ borom këppaat sa kaw parce que famille la yor yor famille yor njaboot gérer leen waaw tey jii am na loo xamante ni nit sax man yaakaar naa nit du xalaat loolu quoi di ko def waaw bu fekkee tamit am na am na ku koy xalaat loolu sax war na mën a xool fameem wala mu xool waa këram wala mu xool njabootam wala mu xool ñi yaakaar papa ñi yaakaar papa dafa bari mais nag yàlla baax na waaw yàlla baax na léegi si kanam buñ doxalee rek incha allahu rabbi lépp dina leer bu soobee yàlla waaw. waaw dëgg la baax na mais aussi euh, Maguette am na benn affaire boo xamante ni dafa am papa bu bëree. mbapat toj nako papa bu simé ko ñep kontaan papa amna doole mën na bëre mais problème bi moy papa mënul daan jamono juñ toll ni ñep question bu la poser posé tegal na ay défaite yo xamante ni yu bëri yo xamante ni lamb yoo xam moo mënu ko daan mais tay est ce que jogul yeen yeen ñi nga xam ne ko jege tout ça yéen ko xam ne encadré ngeen xam problème fu fété ngeen fajj ko wa problème bi ci tourner ko lañ ñek de di wër mais ñi ngi jéx ñi ngi wër mais dañoo jëlaat lépp ñun tegaat ko si suñu borom rek waaw jëlaat lépp tegaat ko si suñu borom te xam ni suñ borom moom bu lay teg dara rek xam na ne attan nga ko moo tax ma di la ko teg waaw am na ñoo xamante ni tey jii suñu daan woon ñaari daanu rek seen làmb dootoo leen déggati wala suñ daan woon ñaari daanu rek xam nga papa daal yàlla na ko yàlla suturaal quoi lafal ko cat xam nga ñi ko bëgg bëgg nañ ko te yàlla rek tax waaw nit moom xam nga li am solo mooy nga bëgg nit ki te rek tax waaw xooloo si moom dara waaw tey suba suba suba suba papa bu doon bërewaat li koy toppoon moo koy toppaat ci kàttanu yàlla kon am na loo xamante ni man maa ngi nii di bëre daan te papa li muy mobiliser man duma ko mobiliser waaw kon loolu lan moo ko waral yàlla moom mooy def nit ki ñii kii nit ñi bëgg la loolu yàlla moo koy def te yàlla nit ñi def nañ ni nit ñi bëgg nañ ko waaw ñu ngi koy ñaanal daal xam nga li ko topp nii yàlla ko wàcc yàlla mayaat ko wér ak wér la mu nekk parce que borom jom la parce que combat bi koo xool xam ni indi na état ñu na doole daj na si ay coono waaw mbir nag boo si dajee ay coono xam nga lu ma la suñ borom wedd da ngay xam ne suñ borom moom moo dogal loolu waa ñun lépp dañoo jël la teg ko si loxoy suñ borom waa di ñaan yàlla ñu yàlla suturaal waaw man naru ma woon sax wax parce que fan yëpp man dem ba léegi génn ma maay toog mais xama rek nga ñëw fii fekkoo fi papa te boo ko fekkoon moom mu am na gëm yàlla gu tooy ne dina toog wax ak yow moo tax man na wax ak yow voilà moom xam naa ne moom gëm na ni suñ borom moo ko xañ voilà mm-hmm. mais bu ñu si problème staff parce mag yi écurie bi am na ay mag am na ay mbër yu fi ne est-ce que ñu ngi dooleel papa est-ce que ñu jàppale papa est-ce que ñoom ñi ngi def lu leen war si mbër waaw loolu moom da ngay boo toog papa moom mm-hmm. boo ko si laajee moom dina si mën a développer parce que loolu moom moo koy xam mm-hmm. waaw parce que man moom li ma xam rek loolu soo ma ci laajee dina la papa nit ku baax la ñu bokk koñ papa nekk nit koo xamante ni man de wax dëgg yàlla suma ma kum beurel dan daan ko parce que fi ni lamb ji geej la mën nga di nap sa morom di nap senegal du lalante wa so le nekké nak dundu jam nga gis ko xamanteni sa sàmmalu ma la mi ngi nekk ko xam ñame famem yor famem nekk ak famem yow nga nekk ci koñ ba gis moom xamalu ma la bi mi ñew bi mi nekk ci famem famem la nekk muy rayante ba famem am nouveau buñ nekk kon bo bo nekké gor nga ko ñaanal réussite wala non la fa démé waaw Beuz tey nga si papa papa man lepp la mom rek kon nu mu doonee lépp si man ma doon noonu laa doonee lépp si moom mu doon raq boo xamante ne nag dafa wàccee boppam si ñun quoi barki Rasuulu laay billaay Baay Faal la waaw Baay Faal la waaw. démb combat bi dem lan ngeen ko dundee ba mu ñàkkee seen xel si lan la dem parce que papa ñu bëri ni papa combat bi moo ko moomoon tey jii en tant que nga jage ko euh, muy dem stade nga gis ni papa mii entraîné na na def na lépp lu mu war def ñëwaat stade su ñëpp kontaan tey mu ñëw ñàkk combat bi te yow. dem mbir mi ba mu demee noonu nan ngeen ko dundee. xam nga àdduna yëpp dañ doon wax papa du entraîner dafa fiñaak dafa nekk xam nga du def ay lu bëri du ko def si làmb daal wante bipa kenn du wax papa gisuñu su moom doole gisuñu su moom entraînement mu doon loo xamante ne nag lépp dañ koy jël teg ko si loxo yàlla ndax tey yàlla su ko neexoon démb mënoon nañu may de lu ñuy ñàkk yëpp su ko neexoon mu may ñu. wante boobaa est-ce que dina est dina gën si ñun est-ce que dina gën si Papa ñun Papa dañuy bëgg lépp lu muy am si àdduna mu doon jàmm ndax du sàmba alaar man loolu rek la ma gën a neexee man nit soo ñemee responsabilité sa biir kër ñeme njaboot doonoo sàmba alaar day doon dama dama lay dama lay gën a dama lay gën a jàpp ba pare nga doon ab taaliwe Papa taaliwee la bark Serigne Touba mbake billahi wallahi taala dem bu mu jugee lamb jo ñew wóor na Rasuulullaah maa ko indi man ak mom ñoo ñëk yex ci kër gi ba yexé tak nit ñi di wax dafa dem sangu ba set japp ba sel motali ay waxtam sante yalla tok ñu soulagé nek suñu bop xam nga ñu ngi sante yalla dal ñu ngi sante yalla bu baaxa baax. hmm combat bi dem bu ci revenir papa li tax mu ñàkk combat bi lan la ça veut mooy problème bi fan la ne ça veut dire papa def na li mu war def entraîné na dem na wuti ñaan def na lépp mais papa tey lan moo waral mu ñàkk combat bi te yow yow li nga gis ne moo tax mu ñàkk combat bi. xam nga nee nañu ab taalibe da ngay am ndigal te papa démb dafa doxee ndigal ba mu doxee ndigal ba am trois avertisement gis nga dafa jékki-jékki demal boppam mooy loo def daanu bëri nañoo nit mu wooñu nañu na papa jugal sa bop ta yalla tax jugal sa bop serigne buma dem pour mu ñaanal ma dana ma lo def daanu jaru sax may ñaanlu kon ñun dañuy ñaan rek dañuy ñaan yalla mu ñu sàkk ñu ak doomu julit ñi ñaan suñu yonent bu tedd gi di ñaan yalla rek yalla nañu yalla teggi lepp lo xamantene rek lu ñaaw la lu nekk ci ñun bañu mëna am ndam si kàttanu yàlla ñun loolu rek la ñuy ñaan yàlla quoi ndax papa lu ko war lépp mu ngi koy def fiñaagul mu ngi entraîné lu ko war lépp mu ngi koy def dafa am doole billaahi wallaahi taalaahi ba man dama koo sentir xam nga ngay ànd ak nit gis moom loo xamante ne yow da nga naan noonoo lii mënul nekk Maguette Seck lu mu la wax dëgg la ñun dañuy dem contact seetaan ko daan ko fa yombul de barki Serigne Touba Mbacke kon ñun dañuy ñaan rek. su nekkee nit moo def lii dañuy ñaan yàlla rek nu ko xool nu mu ko dindee te yàlla rek tax duñ tuumaal kenn wante lu waay def boppam lu waay leen rendi sa loxo lay nàcc te bàmmeel dafa xat te doomu aadama bu nekk war nga see mën a bàyyi xel mii lan ñetti fanu bàmmeel ak sa tëddaayu bàmmeel ñun nag dañuy ñaan rek ay taalibe lañu te Seex lañu yaakaar dañuy ñaan rek lépp loo xamante ne rek lu bon la te si loxo doomu aadama la nekk yàlla nañ ko yàlla teggil waaw ñun papa nay nekk si jàmm rek billaay wallaay grand papa su daanoon deux cent fois su xëyee suba lu muy yóbbuwaat esaat mooy ëpp. mais fu ma dégg noonu dafa mel nii papa am na luñ ko def loo xamante ni mënul daan il faut être clair waaw li ngay dégg loolu la ñuy dégg si nit ñëpp. ñun sax doomu aadama yi ñooy dem man démb ba léegi sama téléphone léeg-léeg dama koy dugal mode avion gaan jug leen seen bopp jug leen seen bopp te yàlla tax papa dañ koo yàq ndax papa ñu ko xam démb xam ko tey papa deful benn yaafuus papa amul benn tapet bu nekk si moom xeetu tapet nekkul si moom ñun du ñu àndal ku yaafuus ñun jàmbaar rek lañuy àndal bañkat barki Serigne Touba te moo nekk si moom jàmbaar ak bañkat ak nit ku gëm yàlla dafa gëm yàlla nag waaw gëm yàlla Baye dëgg la. ku gëm yàlla la barke Sèye Ibra. Mhm. mais tey loxo lu mu def loxo ma na di dindi léegi nag yéen xam ngeen problème bi est-ce que mën leen jóg tapé fort pour dem dindi loolu parce papa ba mu gëjee am dam yàgg na. su nekkee am na sëriñ yu toog ñu seetaan maaraay amul ku ñaanu ñu ngi ñaan ñu ngi góorgóorlu pour jéem a dindi lu nekk si moom su nekkul làmb leneen ak leneen da si am boppam gis nga ñu muy ñu koy daan si làmb ñii ñëpp waxuma ñu ko dul daan si làmb sax. ay mbër yi mag yu nekk waay sax Papa jaay na baxanam ngir ñoom barki Serigne Bamba mbaake jàmbaar la billaahi wallaahi taalaay tey grand su la fekkoon fenn ñu lay néewal doole nga ne boobaa ngay xam ne booy bi jàmbaar la laajal say mbokk journaliste dañuy jël seen alal sax ñu woo Papa Papa li jëntali leen ko si yeneen koñ ak koñ kon kooku jàmbaar la Baay Faal la taalibe Serigne Touba la te sëñ Abdou Karim Mbacke rek la yaakaar bëri ko si mbaltal barki serigne Bamba mbake billahi wallahi beri si mbartal la sos tege loxo day dem sos tegul loxo day dem papa day dem de billahi wallahi ay moromam chaque jour dañ koy gis di ko wan duñ ko gis di ko ci lan lamb ni beure daan sport sport ah ñun sport xam nañ lu sport sport sulu azelo quoi dañuy sante yalla rek waaw. ba tayji euh, papa dembu bamu daano dafa tok ci deug stade bi est-ce que fek nga wa gis nga ñi fa ba mu toogee ñu ko yëkkati mu siisu toog fekkee yow jege nga ko dem ba mu fekkee toog mu toog mu siisu toog noonu ba nga ko daanee pare lan lan lan la doon wax ak lan nga doon wax ak moom. non ba mu toogee yow ñëw na ko Papa jugal mu ne ko Papa jugal yàlla baax na xam nga mi ne ma yàlla baax na wante jàmbaar la mooñ doon dalal de. Mhm. yan moo la doon wax yan moo. waaw moo yu mu doon wax mooy sant yàlla rek moom sant yàlla rek la doon wax waaw sant yàlla rek la doon wax waaw waaw te yàlla na sant yàgg waaw. tey jii dernier euh, mot bi rek lan nga koy digal ak leer lu nekk si kanamam parce que xale bu ndaw la parce que defet moom gis na ci mbër bu fi daan daanu daanu daanu daanu xëy après suñu moom delloo ko indaat ko ay ndam tey avenir am ak li ci kanamam ak ay moroom lan nga koy wax. taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke la doomu sëñ Fallou mooy sëriñam moom la jox boppam àdduna ak alaaxira kon papa baay Fall la Baye Fall googu noonu mu doon moo koy yóbbu fu mu yegg mbirum làmb lii nii làmb la rek léeg nga làmb daj léeg nga làmb doo daj wante duñ ko wax muñ duñ ko wax di courage ndax moom xam lu ndax moom moo ñuy muñal ndax moom xam na ñun coono gu ñuy daj bokkul ak moom coono gu muy daj ñun dañ koy ñaanal yàlla di ñaanal njabootam di ñaanal famem di ñaanal mboolem jullit jàmm ak taw tawféex gudd fan ak wér gi yaram kese loolu rek lañ koy ñaanal papa na jàmm rek am wér am gudd fan ndax du sàmba alaar waaw du sàmba alaar te ku ñeme famille la ku ñeme njaboot la ñeme ñeme ñeme ñeme ay nitam waaw di def si ñoom lu ne papa góor yàlla la de bàyyi fa àlla de day sonn si nitam de ay mbëri mbëri mbëri mbëri mbëri mbëri yoo xamante ne ñu ngi takk ngemb su làmb ji papa day sonn si ñoom sonn boo xamante ne du ko sax sonn si boppam kon loolu sant yàlla la waaw sant yàlla la waaw yàlla baax na jërëjëf